ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom it bi mu ñëwee euh, accéder à la magistrature suprême dafa ñëw woo sénégalais yëpp pour ñu raxas dëkk bi nettoyer dëkk bi jubal jubante euh, ci raxasaa dëkk boobu mu wax euh, setal suñu réew également son premier ministre monsieur Ousmane Sonko aussi moom it gis nañ ko muy appliquer loolu te loolu la digal gouvernement am pour que gouvernement bi yëpp ñëpp taxaw ci ànd ak population yi société civile bi ñëpp euh, ndax dëkk bi bu setee rek euh, lépp dafay mën a yomb defar loolu moo tax directrice madame Soda Ndiaye bi mu ñëwee moom it euh, bâtiment bi xam ngeen ni fii ñu nekk muy rue Amadou Assane Ndoye angle Béranger am na ay structures yeneen yu fi nekk maanaam fonds de développement municipal mu ngi fii également l'agence de presse sénégalaise mu ngi fii am na ay yeneen également service du ministère des finances alors donc ci ñooñu la ñuy waxtaanal pour initier journée bi pour ñu setal suñu service président setal sunyu réew la wax mais madame Sora Ndiaye moom dafa ñëw nii nañ setal suñu service donc muy loo nga xam ne bi personnel bi yëpp dañ ci content waaw ah, moo tax gis ngeen leen ñoom ñëpp ñu ngi mobiliser wu taxaw ànd ak moom ci loolu mobilisation boobu aussi ñu ngi ko ànd ak même service yi nekk ci biir mais teewul ñu gën ci ràññee service civique national moom it vraiment macha allah Euh, colonel bi jiite service boobu di colonel Cheikhna Dieng euh, mobilisé na personnel am yëpp indi ko mais mënoon na sax yam foofu mais teewul moom dafa ñëw sol blouson sol gilet ànd ak ñun di pousse oto yi di bale euh, macha allah loolu lépp donc gis nañ ko di ko apprécier bu baax a baax a baax mais tamit waa SONAGED service UCG ñoom it kenn demul ñu des ndax ñoom depuis démb ñu ngi ànd ak ñun ci guddi gi indi nañ fi benn équipe. équipe bi ndax xam ngeen ni parking batiment bi ci suuf dafa am parking parking bi dafa am ndox bu bëree bëri euh, loolu dem ba léegi ci guddi ci loolu lañ nekk te bi ñu xëyee ñoom it indiwaat nañ beneen équipe euh, pour que ñu mën a nettoyer foofu yëpp ñoom tamit ñu ngi leen di remercier bu baax euh, ci turu personnel bi yëpp.